sëñ Cheikh Aliou ak mbooleem rakkam yi ma àndal yëpp. ci bis bi nga xam ne dama ko ko tuddee woon. nee ci bis bi nga xam ne ko ko tuddee woon. te nga wax jëf jure ji mu def. ji mu ci def. ndax nee nga ma indi na fi nag yoo xam ne. nee naa ko indi na fi nag yoo xam ne yii. loolu nag li ma li ma nee loolu nag lim ci wax léegi da koo ba a waxal boppam ñëpp dégg ko. fu ma gisee jëmmam rek. nee bu gisee jëmmi sëñ Cheikh Aliou. ni mu nuroog maamam. ne ni mu nuroog maamam. ci xar kanam bi ci xar kanam bi. noonu la ko nuroo fulla ji. noonu la ko nuroo fulla ji. ak jom ji ak jom ji. ak taxawaay bi ak taxawaay bi. ak dogu gi ak dogu gi. loolu yëg-yëg la bu ma yàgg a. ne loolu yëg-yëg léegi bu mu yàgg a yëg. bu ma am ci moom bu ma am ci moom. bu ma ko gisee wax ko ko. ne bu ma ko gisee wax ko ko. di ko seeral fu mu néewul. di ko seeral fu mu néewul. kon ñu ngi koy santaat bu baax kon ñu ngi koy santaat bu baax. di gërëm di ko gërëm. ndax xam nañ ni ko sëñ Tuubaa ñoree. ndax xam nañ ni ko sëñ Bàmba ñoree. yoon wi képp itteem. ne yoon wi képp itteem. amul benn itte. amul beneen itte. te ko xam boppam la. te ko xam boppam la. xam fi muy teg tànkam. xam fi muy teg tànkam. ñu ngi koy ñaanal bu baax kon ñu ngi koy ñaanal bu baax. ci jëf ji mu jëf. ci jëf ji mu jëf. ak jëf yi ak jëf yi muy def waxtu. ak jëf yi muy def waxtu wu ne. suñu borom kattanal ko. suñu borom kattanal may ko fanu gudd. may ko fanu gudd. ba mu làq ngërëmal maamam. ba mu làq ngërëmal maamam. ndax ci jàmbaari yoon wi la bokk. léegi ci yoon wi la bokk. te du waxi rafetal. te du waxi rafetal. du waxi masla. wax ju dëgg la. wax ju dëgg la. jërëjëf di la gërëm ndax tey jii terewul naa ko lool waaye nag mënumaa ñàkk ñëw te màggal gi moom lim ma wax léegi rek maa ko sañ ndax sëñ Modou Cheikh Abdoul Khadir moom ma fi daan yónni kon yàgg naa ñëw peex at mu jot man la Serigne Modou Abdoul Khadir daan yebal ma yendu fi ànd ko ak moom booba màggal gi demeegut nii moo tax mbirum Serigne Touba kenn xamul lu mu doon ndax xaw naa cee gëj ëpp na fukki at wala mu jege ñaar fukki at waaye ba ma fi mujj ak ni ma ko gis ren différence bi rëy na lool kon dañ koy ñaanal rek moom ab Ablaye mii nga xam ne dundam gépp jox na ko Serigne Touba Pastef am mooy lépp yàlla na ko ci yàlla gën a dimbali amin ci yoon wii mu nekk ci bëgg sëriñ Touba. ak jéem koo liggéeyal ba àgg fu mu bëgg amiin Mbacke dimbali bokkam yépp eh, Mbacke Balla ala jablaay lu ngeen bi ala jablaay jumaa ji ala jablaay ndox mi ala jablaay daaray alxuraan ji ala jablaay sa baay dimbali na ko nag ndax Cheikh Abdou Khadre dong la yaakaar te lu moom Cheikh Abdou Khadre ànd ak bokkam yëpp sëriñ Cheikh yaa gore Balla si taala nga bis bi de moom mii wa ala jablaay mii rëccewu ma lu ma doon yaakaare baayam lu ma doon yaakaare baayam waaye nii mu ma def nag waaye nii mu ma def nag sëriñ Modou Abdou Khadir tax sëriñ Modou Abdou Khadir moo tax daana tegu ñam daana teg aw ñam du ko lekk du ko lekk ni ma wër ko ni ma wër ko ma di ko wër ma di ko wër ba ñam wi sedd ba ñam wi sedd benn bis benn bis maa ngi moom nu ak sëñ bi maa ngi moom ak sëriñ bi nuy jëfandiku nuy jëfandiku mu ne ko Ablaye Mbaye mii kat mu ne ko Ablaye Mbaye mii kat bis na ko tey bis na ko tey tudde naa la ko tudde naa la ko la ilaha illallah suñu daf Ablaye Mbaye mii Ablaye Mbaye mii bis naka tey bis naka tey tuddee Lolo. la ko tuddee naa lu wér la loolu loolu maa sa juróomi paas yi makka sa juróomi paas yi makka lu kaf kaf nga def ko nga ma nga ma nga ma nga ma ndax sa ndax sa li fi am li fi am. Cheikh Abdou Khadir moo ko fi def. Cheikh Abdou Khadir moo ko fi def. waaye diggante Cheikh Abdou Khadir nag. waaye diggante Cheikh Abdou Khadir nag. ak Cheikh Moustapha ak Cheikh Moustapha. ak keroog ba sëñ Aliou. ak keroog ba sëñ Aliou. mujjee bustaan mujjee bustaan. sëñ bi boole ma ak moom sëñ bi boole ma ak moom. ni ma bokkal ak moom ni ma bokkal ak moom. topp toppatoo ko. toppatoo ko si ñu koy ganale. si ñu koy ganale. ba muy dem ba muy dem. mu ne ko mu ne ko. Alioune Alioune. rafetal njot rafetal njot. te dalum xel te dalum xel. sa maam sa maam. ak sa baay ak sa baay. fagul na la lépp fagul na la lépp loolaay lii loolaay lii cëy allahu akbar daare bi yàllaw basarta yaa baasitul amaala li biridam faskur ma baasataate daare bi yàllaw ki xam ni képp kuy murit xam nga ko di mu laata nekk porte-parole Kitok, Kitok. Wallahi, Wallahi. Manko wallaahi. maa ngi koo giñ ci yàlla. maa ngi koo ci yàlla. su defee discours ba pare. su defee discours ba pare. dafa am ñu may laaj. dafa am ñu may laaj. ndax Égypte la génne. ndax Égypte la génne. man len déedéet. man len déedéet. kër baayam sëñ Soxaybu. kër lañ ko jàngalé. kii toog. kii toog. di wax. Li tubab di wax. il faut mettre les hommes. il faut mettre les hommes. à la place qu'il faut. à la place qu'il faut. bu nous mérité. bu nous mérité. kii de li ñu ko jox mérité lii mu ma defal nag. lii mu ma defal nag. ëllëg ak si biir. ëllëg ak si biir. yal na yéex lool. daanu wax ne. daanu wax ne. Serigne Bass. Serigne Bass. Abdou Khadr. Abdou seriñ Serigne Ablaye Mbaye Peex. Serigne Ablaye Mbaye ba mu ñëwee. ba mu ñëwee. Serigne Cheikh Mbacke. Serigne Cheikh Mbacke. bu Serigne Alioune. bu Serigne Alioune. bu Serigne Moustapha. bu seex Moustapha. fekk fekk. Arabi Niass Arabi Niass lu mu def lu mu def ba mu yéegee ca kaw ba mu yéegee ca kaw ñu ne ko Mansour tànk ya ñu ne ko Mansour Mbaye tànk baaxul mu xuus mu xuus ñëw ñëw bokk sama histoire bokk na ci sama histoire dëgg li tubaab di wax histoire li tubaab di date historique li tubaab une date historique tey ci la le 9 décembre ca ca man soo masaan dem Touba. man su ma masaan dem Touba. daanaa fa dem daanaa fa dem nag. ba fa Serigne Cheikh nekkee. ba fa Serigne Cheikh nekkee. di taw Serigne Moustapha. waaye. waaye. at yi ma dem Touba yëpp. at yi ma dem Touba yëpp. ma jëm. fu ma jëm ci moom ci amul péete. ku amul péete. doo am cër doo am cër. kii rek sama péete la. Cheikh Bassirou Abdou sama cër. ci kër Khadim. ci kër Khadim. kon kii kon kii waaw waaw man nag li ma jaaxal du ma am ñetti fan ci yàlla wanu ma ko ci gént billaahi wallahi tallaay suma doom bi ma ànda tuddee ko Ahmed Iyane da dafa waroon a takk jabar ndaw si bañ demee bañ koy maye ñu ne Touba la dëkk ma tëdd ci guddi ga li si xaaruma gis sëñ sëñ bas mii mi ngi toog ci sàppe yi maa ngi xutba man yi gis ko mu ngi def ni kursa ma ne xay sëñ bas mii nu ko indi fii ci suñ jumaa ji ca ca man kenn waxuma ko ma wàcce mu ne ma sëñ Saaliw moo ma yónni nee na dafa laa bëgg dafa laa bëgg dafa laa bëgg may jabar loolu laa indi billahi wallahi taala